aja tout droit si arène Ndiandiaye bi jour de sélection qualification le coach Bofa l'international <laughs> le diabo isani bu jirna sar oyal la fambuda basul bandi 40 mbeur pilis nante mbeur du yew mom da yew Cheikh sar 66 kilo équipe nationale Cheikh sar l'international waaw borom Niger ngi noonu gis ngeen ko noonu mayo Sénégal la laal Cheikh Sarr TV aca tout droit l'arrivée de Doudou Sané cent vingt kilos Fatick Khadafi <laughs> Đông quý. Còn bút. كده غير نيو لا هي نيو لا هي نيو كده غير نيو ايه نيو

e bandi bandi góor gi jàpp na la de ah <laughs> eh duudu duudu e bandi nee na wooroo de <laughs> ngoor ñaax machine ne Ngor Niakh l'international <laughs> tout droit xanaa kii caméra de woo xaw ma loxo lay nuyoo ngi noonu Ngor Niakh ak Doudou Sané ñoo mujjee yegsi la complicité de lutteurs macha allah. Ah, sí, eres